ألف لام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 di jiital ci nuyoo yi ak ñaan ak ziyaar yi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak wér mboolem njabootu Serigne Touba gi yépp di ko ñaanal mboolem kilifa diine yépp leen wax delsi nañ ki seen ñetteelu jataay ci seen mission bi ñuy wax fàttalante ak yeetante ci diine lislaam tazkirun wa fil islaam ñu fas yéene leen ko digtal alxames bu nekk ci ngoon lu weesu 19 ci seen chaîne bi ñuy wax ndaayaan Vision ci ñu koy topp ci YouTube bu dee Facebook tamit kazalika bi noonu la Ndayane Vision wala internet www ndayane service point com di dokaan gànt bu baax nag ni ñu koy waxee saa su ne rek ci doomu soxna yi ak mbooleem boroom xam-xam yi nga xam ni ñu ngi teewlu tey diglu te xam ni ni ñu ko waxee woon ca njëlbeen nga rek suñu àlliwoo moom taxul mu gudd lool waaye xëy na yéene rek lañ am moom te yàgg nay dugal boroom mu mel ni mbokk yi ba tey ñu ngi woon ci fàttalente rek lan mooy diine l'islam d'abord bala ñu dugg ci yenn détails yu bari ak njàngaleem ndax nit ki lim nekk daa war a xam mooy lan te man jàpp naa ni jamono ni muy doxee ak li ñuy gis ñu bari xamatul léegi lan mooy diine d'abord waaw nañu nan ni ñu ngi ciy diine lislaam ay jullit lañu waaye koo ca taxawan tey ñaare xëy na laaj ko ni ko ci gàttal lan mooy diine lislaam néewaana mu tënk la ci ay baat ko defee kon day jekk day jaar ni ñu koy waxee saa su ne rek euh, ñuy fàttalante ndax alxuraan dafa waxan ni wa zakir in nafaati dikra waaw nangay ngay fàttalante ndax fàttalante dana jëriñ te boo fàttalee ki nga xam ne am na tuuti ci ragal yàlla dana ca fàttaliku la yazakkaru man yaxsha su ko defee mbokk yi ni ñu ko waxee bii weesu ñu ngi taxawoon ci bi sëriñ bi di wax ñi bañ di teg bët ñi nga xam ne ñoom lañuy wax nasaraan yi ak yahudi wala ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénkate àdduna su ma ko sañee wax ndax am nañ tous les moyens nekk ci seen loxo dem nañ ba egg ci seen jay boobu leen yàlla jay sax ñu mën a defar lu tuuti loo xam ne mën naa faagagal àdduna ci ay minutes yu ndaw a ndaw te boo xoolee lu lépp teraanga jooju Euh, ak ak ak yooyu nekk ci seen loxo wax dëgg yàlla jullit yi ñoo ci gën a na yay ñoo ci gën na jekk ndax sun borom ba mu waxee wala xadd karam naa ba bani aadam daf caa tag ni wa amal na nahum fi lbarri walbahri wa razaqnaa min tayibatin wa faddalnahum ala kasirin bi man xalana tafdila xëy na ko ñun suñu ñàkk gëstu ci yenn yi suñu ñàkk euh, maanaam jëfandikoo xam-xam suñu ñàkk jëfandikoo li ñu waxoon toujours rek ki la ñu diina indil ak xeeb gu ñuy xeeb suñu bopp yenn saa yi mooy ñu jural loolu nga xam ne mi ngi ci ñoom te fekk ci ñun la gën a jekk ci ñun la gën a jaadu en tant que ay jullit sëriñ bi wax ni lu tax mu ne ak jay la nañ leen jàppe ñoom daanaka ay baadoo la yoo xam ne tekkiwun dara lu tax mu wax ko ndax daf ni li anna man lam yatabix muhammada alayhi xayra salawaati sarmada képp koo xam ni lépp loo mënti am ci àdduna lu mu euh, rafet rafet lu mu bëri bari lu mu jaaxal jaaxal doomu aadama yi hmm? ca toppoo sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci diineem jii ko yàlla jox mu indi ko toppoo ko ci risaala mooy ci njàngaleem sëñ Tuubaa nee na fa innama masiruhu ila radda is rawluhu wa fi'luhu lan yuhmada nee na kooku ak mujjam du am mujj gu rafet fa muy mujjee rek mooy alkande ndax la muy wax la muy def du ca am payu yàlla yàlla du ko ca sant su boobaa nag àdduna moom mën na cee am teraanga ju dul jeex mën nga ko cee ñee eh, bu ëllëgee bu ngay demee teew fa sa kanam borom tabarak wa taala da nga xam ne ñii kat lan yoroon ba tax nga topp seen ginnaaw daw bu dégg bëccëg ba fàtte sa borom fàtte njàngal sa alayhi wasallam fàtte sa diina lam la waxoon ba jël la diina indil la nga sànni ko jël seen seeni luwaa ñoom jël la na indil su boobaa da ngay réccu ndax da xam ne kon ñoom lan yoroon du woon dara teew la la yàlla joxoon nga nekk ca moo doon dara waaye olof wax naan réccu day fekk yu fees day fekk ju fees moo tax mu ni kon amma la si ahabbahoo sumaxtada bihi fa faizun wa mahmudun xada mu ne nag yow mi nga xam ni yaa ngi taxaw ci roy diine sallallahu alayhi wa sallam ci sunnaam ci jëfee njëgale diine bàyyi ay tereem nekk ca nee na donte amoo dara ci àdduna tamit nee na xamal ni yow yaay ki nga xam ni dangay texe te say jëf bu ëllëgee da ngay am li nga def dañ ko say jëf dañ koy sant yàlla da koy nangu bi bu ëllëgee da ngay bokk ci ñi nga xam da ngay texe ngir lan da jël li la yàlla tànnal te jël li la yàlla tànnal dafa gën a wóor te da nga xam mooy li nga xam mooy gën mhm. kon mbokk yi ginnaaw bu ñu xamee ci ni eh, diine dafa ñëw ngir jubbanti dafa ñëw ngir defar dafa ñëw ngir su nekkin mën a yéwén mhm. ba nit ñi mën a dund ci jàmm dund ci dal dund ci am na mooy sécurité dund ci yaatu dund ci noflaay eh, dund ci ci mbaax dund ci daal kenn ku ci nekk nekk ca la nga war a nekk bàyyi sa morom nekk ca la mu war a nekk kenn ku ci ne nangul sa morom lam am kenn ku ci nekk mën a euh, nangu sa morom la ko yàlla jox mënuñu ko am mukk ñu ko def mukk te jëfewun lañu ñu diine jàngal waaye suñ ko wàccee rek mooy gis li ngay jur moo moo moo gis li nga mooy jur li nga xam moom leen moom leen gis moom leen gis ci jamono ndax nit ñi fi nekk nit ñi ca xajoo ñi ca xajowante léegi bëreetut day dem sax ba kër yi ci famille yi commencé gis ñu bokk neeg baay gis ñu bokk benn baay ñu bokk ndey ñu bokk wasila ñu bokk nangam te mun ñoo xajoo te ñoom bokk nañ loo xam ne mun ñu koo séddoo kon suñ ko defee rek tan ni ay wilit lañ ña ngay dem ci jàkk ja ñaati nit ñoo fi jóge dem màkka su gàmmu jotee ñi ngi màgg ñu ngi gàmmu ñu ngi dem ay màggal ñi ngi cant ku dégg bëccëg te li ñuy wax wax dëgg yàlla mooy li ma waxoon ca njaal benn nga rek wax yi moom ak jëf yi dafa wuute lool te loolu la muy mooy kon ni dañuy dégg ne rek la ñuy dine jàngal jëfewuñ ko lam ñu tere bàyyiwuñ ko moo tax mu ñoo nekk dëgg dëgg doomu aadama yi ñu soxla diina nag yaram bokk na ca li ko tax a jóg nga xam ne mooy nit ñett yëpp daf ko yar ndax yar dafa am façon am ñoom dañuy yar xel bàyyi euh, ñenn ñi di yar ruu bàyyi xel ñenn di yar jëmm kese waaye diina moom ñett yëpp lay boole yar leen te ñett boo ko yoree ba leen lu ci nekk fa mu war a jaar nga jaarale ko fa doomu aadama bi bu matee bu màggee day nekk doomu aadama bi mat benn soxla wan ci doomu aadama day mat sëkk ci moom moo tax li ñuy wax tarbiyatul xaq li tarbiyatul gis mi ak tarbiyatu ruu doomu aadama mënu koo am lu dul ci jëfee ndigali diine mënu ko am lu dul ci ñu yor ko ci diine ndax boo yoree leen nit ki maanaam xelam maanaam nga yee ko bu ne yaru xel mooy nga yee ci àdduna te yoroo ruugi ba mu ragal yàlla kooku lu ne mën na koo def ndax lan la nga war a jiital mooy ragal yàlla amu fa te yewu na ci àdduna yewate bu nga xam ni njub la mu bëgg a def man na koo def ngir xam na nu mu koy defee te jàng nga ko ba nga yee ko ci waaye nag yoroo ruuga mu am taqwa maanaam yoroo ko ci ak ragal yàlla kooku su yéetee lu ko soob man na koo def boo yaree yaram yi tamit yoroo ruug yi kazalika euh, nga nga yar ruugi maanaam mu am ragal yàlla waaye yoroo yi mooy tàggatoo ko ci sonn tàggatoo ko ci maanaam ñime coona kon kooku mën a nekk nga xam ni day jàpp ni toog ci barab rek daa war a toog ci ruqam rek dégg nga naan lu yàlla dogal yàlla dogal fekk dogal boo gis rek maanaam sabab ma nga ca kon kooku su boobaa tàyyel daf ko yomb moo tax sëñ tubaa ci mu njàngaleem yëpp la daan boole ji defar ba nga xam ne su noppee ci doomu adama bi doomu aadama bu ma sëkk li ñuy wax insaanul kaamil lay produire mu taxaw nit ku ma sëkk ci ñett anam yëpp nga xam ne boo dikkee ci àdduna soo demee ci wàllu wàllu wàllu gëm ngay gis fekk xol bi defar nañ ko ba nga xam weesu na yàqu ngëm yàlla ma nga ca euh, tawxid ma nga ca wéetal yàlla ma nga ca ak mbaax ma nga ca dégg nga soo ñëwee ci ci wàllu àdduna bu ngeen demee ki tool yi moo la ciy man bu dee liggéey moo la cay man foo ko fekk ma ngi këtti këtti ngir dunde lu lew ma ngi këtti këtti ngir ñàq dunde waaye du toog ki xam rek naan yàlla baax na hmm. bokk na ci rafetal yar yooyu yar yooyu pour nga mën koo am njëlbéen nga bokk na ci sa doom na nga ko tànnal tur wu rafet hmm. ca boo ko boo ko ko tànnalee nga dogu ci ñu ko koy wooyee yëpp ay point loo xam ni ay point lu yoo xam ni euh, dañ koy junj nii rek mu bokk ci li islam ñu koy fàttaleen ci ci li mooy diine l'islam waaye benn bu ci nekk daanañu ko wutal incha allah waxtu boppam maanaam def ci mawdu mu gën koo yaatal ndax bu ko defee tur dafa am solo ci lislaam moo tax ñu ni deneen tuddee seen njaboot gi tur yu sell yi tur yu baax yi te càggante dem na ba ci fi mu nekk nii nit dana jël doomam tudde ko ku baax waaw ku ñëpp naw waaye day dégg ñu di ko yàq nga tudde sa doom xaadim ngay ñu koy wooye xaa nga tudde ko xadija ñu koy wooye di xaa nga tudde ko fatima ñu koy wooye tima hmm? ñoom ci seen bopp xale yi sax dem na ba léegi ñooy tunne di sensé seen tur yooyu bu ko defee te xamuñu Euh, influence bi mu mën a def lu bëree bëri ak tur bu par rapport bu ñu ko doon wooyee tur bu nga xam ne moom lañ ko tudde ndax tur day am lu am solo ci doomu aadama mhm. bokk na ci moo tax Seydina Ousmane Ali euh, radiyallahu anhu dafa wax ni euh, jaxasoog ñu baax bokk na ci li lay dimbali nga mën a am yar bu rafet ak mën a dund diine lislaam na tax mu ni jaxasoog ñu baax war dafa war waaye roy leen ne ki la ñuy def farata la waaw nga xam ne kon yow booy wut àndandoo booy wut xarit booy grand place seetal ña nga xam ne boo fa toogee dana yokk sa diine yokk sa ngëm yokk sa pëseef nga am loo fa jëlee daal ci yokkute su boobaa ngay ànd ak ñoom di jaxasoog ñoom su ko defee dana la yokk ngëm dana la yokk mbaax ndax olof day wax ni su la baax téye àndal ñu baax su la bon téye àndal ñu bon moo tax Sëñ Tuubaa waxoon ni euh, na ngeen ànd ak ñi nga xam ni foo leen fekk dañuy jaamu yàlla dañuy diggal lu baax di la teral bon nga leen roy ca loola moo tax mu ni wa laazimu man la yasalu abida li rabbihi ila hudaw xaida bokk na ci loola mm, ni salaa waxoon ci ni moo tax mu ni ki gën ci nit ñi mooy ki gudd fan ba noppi rafetal jëfam waaye ki gën a yées ci nit ñi mooy ki nga xam ni fanam gudd na waaye jëf yi daa naaw te bokk na ci liy tax nga mën a rafetal say jëf mooy li ñu la wax mooy nga dund diine xam la diine digle nga nekk ca lam tere nga bàyyi ko xam ña ngay àndal xam ña ngay toogal xam ña ngay fréquenté également su ko defee rek kenn du la mën a influencé kenn du la mën a changé da ngay mujj nekk nit ku nga xam yow koo àndal soppi ko te kenn mun laa soppi ndax soppi gi nga xam kenn mun laa soppi mooy dangaa am loo gëm ay principe yoo xam ne da koo gëm mu nekk ci yow ba kenn mun la caa jëlee te xam nga la nga nekk mooy dë mooy lii dëgg moo tax mu waxal ni salaa salaam ni yar leen seen njaboot gi te rafetal yarin wi adibu awlaadukum wa ahsanu taadibahum moo tax mu waxal ne salaa salaam nee na doomu aadama bu faatoo euh, relation maanaam léppam dagg na ci àdduna amatu lu koy mën a jëriñ xanaa lu dul ñett bi su njëkk mooy mu amoon sadaqatu ya bi maanaa sarax bu continuer masala mu mel ni ku nga xam ne gasa nab teen wala tabaxa na jàkka ba bënn na ay teen waaw tabaxa na jàkka ba bënn na euh, bënn na teen baa ma def hôpitaux yu ñuy fajoo baa ma bind ay livres yu demee noonu ñu di ko jàng xam-xam ba mu bindoon ñu di ko jàng ginnaawam tuyaaba jooju ak yiwoo da koy fekk ca euh, bàmmeelam wa ilaa mu bàyyi fi mm, doom ju baax ju di ko ñaanal moo tax kon taxaw ji ngay taxaw temm sol saw dàll xar sa tànk tubay ci sa doom euh, yaru diine ak islaam du sa pertement ndax boo nga koy xam dëgg nag nga jóge àdduna war laa taxawu njaboot gi war a taxaw sa ginnaaw man dama koy faral di wax lu bari ci ay jataay nii kenn ku ci nekk boo sañoon sa doom moo lay gën kon nag da nga boo sañoon sa doom moo lay gën nag bul tayel bul yokkat bul daw lu toll nii ay ni defal kéemtalaay kàttan la la diine may ci ñoom nga def ko ngir ñu yaru ñu am jikko ju baax ba nga xam ne bu ëllëgee boo fi génnee àdduna ñu ma laa taxaw surtout bu nekkee sa taaw moo xam góor la moo xam jigéen la nga xam lu ñuy def sa ginnaaw moom il faut mu assister su boobaa nag bu fekkee jàngaloo ko diine jàngaloo ko lislaam xamul diinam xamul la ko diine wax xamul ko lislaam wax su boobaa lépp loo fi bàyyi rek mën naa mel mi nga xam sa ginnaaw du nekk la nga gënal du nekk loo bëgg te boobaa kon responsabilité bi du kenn ku dul yow mi nga xam ni bi nga fi nekkee aman moyen yëpp tegoo ko ci yoon ko war a teg waaw su defee moo tax euh, ni ko borom euh, ñenn ñi di waxee euh, ni foo gis ñu baax rek lu baax moo fay am waaye foo gis ñu bon tamit boo fa demee mënoo faa jëmee mënoo faa jëlee lu dul lu bon moo tax li ñuy wax xekk ma ñi nga xam ne dañoo am waxu xikma la ñuy wax dañoo wax ne àdduna daal boo koy xool du ko misaal marché la marché nag bu ñu ko waxee kenn ku ci nekk ak marchandise ma ngi fay exposé waaye nag ci anam bi ñu fay exposé marchandise yi wuute nan wuute gu nga xam ni ak ni ak ñuy ak yére clients yi ak ni ñuy naxantee ni ñuy maslaxante ak ñoom ci loolu la ñuy rawantee ba kenn ku ci nekk di ëppale sa morom bénéfice bi maanaam kon lañ ciy déggee moo ni kon àdduna boo fi nekkee nit ñi ni ñuy rawantee ci xëy na relation ni ñuy rawantee ci xamante ni ñuy rawantee ci jikko ni ñuy rawantee ci nangam ci la ñuy gën a ëpp ëpp ëppe ay soppe ci la ñuy gën a ëppalante ay ay ay xarit ci la ñuy gën a ëppalante tamit également ay connaissance waaye nag ci la ñuy gën a ëppalante tamit li nga xam ne moom la ñuy tagge doomu aadama te mooy jikko ndax sallallahu alayhi wasallam la ko sunu borom tabaraka wa taala tagge woon ne tëggu ko ci ay maam tëggu ko ci juddu tëggu ko ci lenn da ko ne wax innaka la ala xuluqin moo tax ba mu dikkee mu ni moom mboolem yonent yi fi mas a jaar yépp dañ doon ñëw ngir jàngale baax jàngale jikko ju rafet ma ñëw ne ki nga xam ni maay mujjantalu yonent moo tax mu ni maa ngi ñëw ngir euh, utaan mu makarim axlaax boole loolu lépp na yàlla def ko ci moom mu ñëw motal loolee kon mbokk yi dafa mel ni ak seeneen fi war a jët yëkkati jataay bi ñuy santaate gërëm bu baax yéen ñi nga xam yéen ngi topp ci seen euh, Ndayane Vision ni ñu koy waxee woon rek di dellu leen ñaanal di sàkku seen ñaan di ko fas yéene di leen di leen jox dig daje incha allah euh, alxames ci waxtu wi incha allahu rabbi jeexale ko rek li tax ndigal am solo jëfe ko su surtout diine ndigal ak xel maanaam dafay mel ni ndigal lëndamaayu fajar la luy asamaan di gën a dem muy gën a se muy gën a muy gën a leer waaw bu dee nag loo xam ne da nga ko teg ci xel rek maanaam day mel ni lëndamaayu timis la amaana looy gën a dem gis nga guddi gi lu muy gën a dem muy gën a lëndëm ñi ngi wàcc foofu kàddu yi leen jox dig daje ba alxames ak jàmm incha allah ki seen Ndayane Vision YouTube Facebook ak 3w ndayaneserieuses.com wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alif lam